del déglu del xool Feeling Dakar ku ko xamaloon xamal jot na jot na tey la jot chers compatriotes ngeen nekk Casamance ngeen nekk Saint-Louisien ngeen nekk Kaolackois ngeen nekk Tambacounda fu ngeen mënti nekk ci Sénégal na ku ci nekk ci yéen xam ni jot na lii xew lii di daw du dagg ba Macky jóge ci réew mii lii xew lii di daw du dagg ba Macky Sall jóge ci réew mii ku ko xamuloon démb nga xam ko tey Macky dafa laal fu mu warul laal Macky Sall dafa egg fu mu warul egg ñu bëri dañoo defe ne ni euh, ci Ousmane Sonko lay yem non jeex na on par plus d' affaire procès affaire dem fii dem fële non non ki ko xamul yaa ngi juum lu rëy Macky dana abale makisal Sall tu vas pas nous humilier Macky Sall dañ la artu depuis huit ans yu ñu ne ñu ngi lay artu da nga laal nag li nga warul laal. Macky Sall di nga abale te que les sénégalais comprennent dama dégg ay journaux naan Casamance nuit blanche à Bessir benn Casamance yi yëngatoogul waaye ñu ngi ñëw waaye ñu ngi ñëw de Ousmane Sonko bu fekkoon tey la fanaan pale bi tey la fanaan kaso yow mii Macky Sall sa tànku Sénégal doo ko fi doon amee pour toute ta vie pour toute ta ñu ngi lay topp di la nax ñu topp di la nax ñun Casamance yi 30 ñu ngi jooy suñuy mbokk deret di tuuru Casamance deret di tuuru Casamance ñu dem nga lal sa plan loolu moo tax ngeen commencé di bombarder Casamance di naan ay bastion rebelle ngeen di def ay ratissage parce que préparer plan nga defee ne boo laalee Ousmane Sonko nit ñi du ñu génn Macky Sall da nga lax da da da nga nax sa bopp tous tes plans là nous on les a compris bombardement yi ngeen doon dégg dans lu côté de Ziguinchor côté ja lii la doon préparé parce que pour moom bu ko defee ba pare nit ñi dañuy ragale yëngatu Casamance yi jógaguñu jógaguñu te dinañu jóg lu ngeen ci mënti wax bu yóbboo teg leen ay rebelle du tey lañ ko soog a dégg bu yóbboo teg leen lu leen neex Sonko dafa am mbokk dañ la koy wax ko dafa am mbokk bu dee yow amoo mbokk Sonko dafa am mbokk dinga ko xam ñun du ñu seetaan fu ñu toroxalee suñu doom du ñu seetaan fu ñu toroxalee suñu doom ci humiliation bu toll nii Macky Sall di nga xam ni sa baaraam puso nga jël jàmm sa bët waxatuñu affaire tëj Sonkaa ngi nii bu la neexee demal tëj ko bu la neexee nga bàyyi ko mais yow jeexal nga. yow Macky jeexal nga ça c'est pas pour s'arrêter aujourd'hui ce qui a commencé la ce qui a commencé la yow ak ñi la topp yow ak ñi lay toogal ci plateau de télé en de salir ce vaillant garçon yow wóor na la si sa biir si sa biir bu rëy bi Ousmane Sonko wóor na la moo la gën a set téeméeri yoon moo la gën a gëm yàlla téeméeri yoon tànk Ousmane Sonko sax yow jegewuloo ko mel noonu yow yaay taxaw pour humilier les Casamance jusqu'à ce point fan nga jege doomu Casamance di dem bu un fils digne de la Casamance di dem di violer jigéen fan nga ko mës a dégg fan nga ko mës a dégg tu vas pas nous insulter et nous humilier ces imbéciles là que tu appelles ñoom nga woo démb ñu ñëw fekk si la Dakar ils feront face avec nous l'heure est arrivée l'heure est arrivée caaxaanuñu de l'heure est arrivée le combat sera intense et sera contre tous les complices que les gens du Pastef sachent que lu ñu tàmbali tey du dagg du jeex tant que Macky Sall mu ngi ci bopp réew et c'est un peu partout du Dakar kese Ziguinchor Tambacounda colda Thiès partout demain à partir de demain te comme nu ko tàmbalee tey il a plus de respect de quelque barrière que ce soit de quelque mesure que ce soit c'est la désobéissance civile Macky Sall di nga abale par nii Macky Sall di nga abale par naa yow ak sa jom boobu ñàkk a jom boobu ah moom nga indi teg pour door plan nga ne yow doomu Casamance bu nga xamante ne le seul fils digne qui nous reste yow tu vas l'humilier en public Macky Sall tu n'as pas de conseil defe naa ñii ñoo buggoon sa départ lii lañ doon xaar lii lañ doon xaar Macky Sall di nga xam ni Ousmane Sonko am na ay mbokk bu leen neexee Ousmane Sonko am na ay mbokk bu leen naqaree Ousmane Sonko am na ay mbokk ak loo leen ñu mënti teg. yàgg nañu bi ñu juddoo ba léegi ngeen ne ay rebelle lañu di nga xam ni doom rebelle nga nga laal wax leen lu leen neex ci seen télévision yu kàcc yooyu ces violeurs là ñoom ñoo dem monter de toutes bu pour dire que Ousmane Sonko a violé on va faire face avec eux ñoom ci tuur yi la ñu dem ak ñoom billaahi caaxaanuñu billaahi caaxaanuñu caaxaanuñu ces violeurs là connus de tous ñoom ñooy dem lal ne Ousmane Sonko moo violé wax leen lu leen neex Ousmane Sonko am na ay mbokk ku amul mbokk daa fekk da bon ku amul mbokk dafa fekk da bon ku amul mbokk dafa fekk da nga bon wax leen lu leen neex rebelles yi ngeen doon tudd di nga leen gis fépp ci senegal rebelles yu ngeen leen doon tudd bi mu ñëwee soo du ngeen ne ay rebelle la ko daalal barki Dembo Ndiaye ces ces ces singe la golo yooyu ñoo taxaw fii ñu ne ay doomu xaj ñooy topp Ousmane Sonko yooyu yëpp ñu ngi koy encaissé di di di teg yooyu yëpp ñu ngi koy encaissé di xaar ngeen de Ousmane Sonko ñuy ànd ak ñoom ay xaj lañu léegi laal ngeen xaji yi vous ferez face à ces chiens là vous allez faire face à ces chiens lu ñu laaj nit ñi. nous sommes dans un combat. Nous ne pas dans une manifestation. Nous sommes dans un combat. La guerre, makisal Sall moo ñu ko déclenché te alerté nañu ko plusieurs fois mu am ñu koy nax makisal Sall nga xam ni danga laal ba egg fi nga waruloon egg son ko demal jàpp ko bu la neexee. Ousmane Sonko bàyyi ko bu la neexee mais li dootul dagg Macky Sall tu es fini tu es fini tu es fini es je sais que tu feras couler assez de sang dans ce pays tu es capable tu feras couler assez de sang mais Macky Sall tu vas partir c'est fini on veut plus de toi dama koy wax di ko bantuwaat comme yow nga ne yow amoo mbokk